jërë ngeen jëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne émission ndaanaan ndaanaan ci biir ndaanaan yi comme ni ma leen ko waxee woon ñëw nañ seet si benn xale boo xamante ne tey dañoo jékki-jékki rek sëñ Basiru na ma jiile ma ne ko naam mu ne ma nañ daw dem stade Léopold Sédar Senghor xool CNG de lutte bi ñan ñooy renouveler seen licence ak ñan ñoo ci nekk. ak ban promoteur mooy dox làmb am na promoteur bu ñu fi fekk léegi mu fi sele benn combat bu mag boo xamante ne macha allah loolu dinañ ci wax léegi du yàgg muy Idaly Gningue ñu fekk fi euh, nu mu tuddati Yankaaw Yankaaw nekk xale boo xamante ni macha allah barki démb gis ngeen li mu def stade Jom Iba jër Diop moom ak Réparé 2 dañuy waxtaan ci lépp Yankaaw maa ngi lay nuyu. waaw jërëjëf maa ngi delloo char di wax onze billah bisimilah inna waliyallah di wax jërëjëfati Serigne Touba ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant Sénégal monto andia di sant suñu Serigne Cheikh Bass di wax balay sa dundal yàgg fi loolu di wér di nuyu suñu waa dëkk nag waa Bawol waa Mbombay xam nga surtout waa Mbombay ku ma dundal bu bàyyi ñu fenn di nuyu fi ma dëkk muy Bentali Grand Dakar Biscuiterie waa Lëm ngi du nuyu waa marché Asalem xam nga waa marché Ngalaw xam waa Medina waa Colobane tamit maa ngi bëggee ñëpp daal di la siyaar bu baax a baax di rafetlu émission bi tamit. Mm. lu tax nga loo doon wut CNG fii. waaw CNG dama amoon combat sama contre mën a réparé xam nga nekkoon ci waajtaay bi booba tafuñu woon simple bi quoi dóor rek lañ tafoon te yankaw koo xam-xam ne day wàcc ci mbabar yi di compétir dañu ñëwoon tey pour defar suñu licence simple. Mm. pour wàcc ci làmb ji daal. waaw pour wàcc ci làmb simple ji quoi. Mm. boo yee man nag Dakar fii nii dama fi xam nga Dakar moom gars yi keroog maa ngi dégg ñu ciy commentaire lu bëri ndaxte dañ ne ku nekk quatre ngay bind quoi daaw li ma fi ran lépp xam nga lambu Dakar fi dafa xaw a metti quoi da ngay dem pour bind bi poids lese day metti benn yoon laa fi compétir daaw a lourd laa bind woon mais ren nag lese lañ bëgg a bind daal mais xam nu ñu demee. bëgg nga koo ñàkkante comme ça ay rakk yi nga xamante ne wala say morom ci ci ci bi. ndeg ay xale lañ nekk ci làmb yaakaar naa ay xale yu ndaw lañ ci làmb tollaguñ ci fenn dañoo war a jàngaat lu bëree bëri ci bëri. ñaari combat nga def arène. arène def naa ci sept combat. ñaata am ci quatre victoire trois défaites. kan ak la daan. man Ngoñaan fay moom daan ak Jacob Balde ak Jackson. Jacob Balde ak Jackson. Ngoñaan Faye. Ngoñaan Faye. ñoo daan waaw. Jacob Balde ak Jackson rek jar naa kii Jackson mais moo bëree woon nag euh, nu mu tuddati Lac Rose ba. Pape Ndoye Pape Ndoye mais pas Jackson boobu nag Jackson bi écrit Mansour Mbaye la nekk quoi. Ah. moom moo mujjee bëree fils de Salo fii nii. Ah, arène esal suma juumul. Hmm. Euh, nga def ñaata victoire kan nga daan. ma am quatre victoire daan fils de Salo. Hmm. daan Bébé Kale bu Pikine mbooloo. Hmm. daan Cheikh Kayma. daan réparé numéro 2. nga mujjee daan bërki dem. waaw réparé numéro 2 laa mujjee bëreel. di ko nuyu au taalibi la baafaal la sama mbokk la maa ngi koy yaar bu baax. keroog ngeen bëre yéen ñaar bi ngay jël réparé bi nga ko gisee mu sotteekoo soow bi weex tàll amoo loo yëg benn tiitaange bu ne ci yow. bi biñ waxee suñ combat rek dama abordé quoi ndax dama xam ne mbër laay bëreel ndaanaan laay bëreel te dañ ne boo bëggee boo bëggee doon ndaanaan faaw nga doon ay ndaanaan suñu amee lu ñuy tiit ci làmb see ba ñu tekki suñu ngeem bu bàyyi quoi ndax kuy takk sa di bëree ku ne ku daan ku mel ni Pakala bu Lansar daan Bébé Diène ci mbabat xam nga daan ko ci mel ni Boy Balde xam nga kon am na loo xam ne mënu la tiital ci làmb daal làmb yaakaar naa képp koo suwaa di ko def rek amul lu muy tiit quoi. noonu

Paul Maurice sama grand xam nga tamit dañ leen ñaanal promoteur wuyu si leen tëggal leen combat ndax dafa ay ndaanaan ñoo fa nekk ay champion di nuyu ku ci mel ne suñu coach su Mbaye Faye tamit ak Père Diakhaté ñoom Faye Biram ñoom Mbaye Diouf dañuy sonn ci ñun ñoom pek bari Serigne Salim Mbacké dañu teg lu metti ñu fay liggéey lu metti yee ikiri Doudou Baka Sarr fa la Alubadu nekk wala nekk fa. Alubadu fa la nekkoon mais instant bi dafa tukki. di ko nuyu de passage suñu grand la suñu lépp la instant bi mi ngi États-Unis xam nga yee. na am na benn rakk bu mënoon Cheikh Ousmane tamit tukki na. Hmm. yee. ndeysaan mbër yi ñu ngay daw rek di dem ñëw leen ay Efran Rouge ah Ramdan Dumbul ñi nga xamante ni dañoo bokk ci ñi yor làmb nga xam ni làmb dañ leen di namm xale yi jomay tukki waaye fu mooy ñibbisi ñibbisi leen fii ci réew mi ñëw liggéey làmb a ngi nii te làmb yéen a ko war a mën a taaral wolof daf ne tukki daa dalub xel rek waaye du ko toog sa réew torox xale yi toog ci réew mi fii ñu ngi am loo xamante ni ñu ngi ciy am njàmbaar di di di ci dox di ci am waar woo xamante ni waar wu mucc ayib ñu ngi leen di ñaanal la képp koo xamante ni da dem wuti yàlla na nga am li tax nga mën a dellu siwaat fii ci sa réew ba teral ci ñëpp ñi nga xamante ni noonu nga ci bëgg a teral ba tey ci làmb promoteur yi ñu ngi démarché sa combat wala déet. waaw bañ jaale bare promoteur ñu ngi démarrer suñu combat du ñu wax ay adversaire quoi ñun moom pare nañ pour lépp ndaxte mbër bu ndaw yaakaar naa chaque jour da nga war di te ñun benn mois bu ne dañ benn weer bu ne dañ ci war di bëre quoi ndax ay xale lañu bëre rek lañu war di def luñ def lu bëre bëre lañu war a def ñun nag ñu ngi toog rek pare di xaar ku ñu laamu boole dañuy bëre ak yow. dégg naa am sa combat. waaw am na promoteur yu dox sama combat. yaakaar promoteur la yaakaar naa sori nañ ci ku ci mel Abdoulaye Ndiaye doon na dox sama combat Fallou Ndiaye Idaali ñu ngi mais am na promoteur boo xam ne daal finalisé na yaakaar naa ne buñ kanam tuuti dinañ dégg suñu combat. yàgg mbër la kooku. waaw buy sottee rek ba mu génn ñëpp xam ko ndax yàggatul xam nga rek mbëri koo ci tudd tamit mu jàpp ne mooy loolu mais moom xale lañ nekk ci làmb rek yaakaar naa wax naa ak mbër boobu wax naa ak tamit yéen ci làmb ngeen nekk bu combat finalisé rek léegi ñu dégg ko la wala mag. xale la man xale laay bëreel de <laughs> taamu maay mag de xale lay bëreel samay morom. kooku mos naa bëree grand combat. mosul bëree grand combat. Hmm. déedéet. mosul bëree grand combat mosul bëree grand combat. ñaata yoon la naa six combats am six victoire daal. mosul hmm, daanu. mosul daanu. ban la nekk. <laughs> nañ bàyyi mu sedd rek dafa am foo xam faa dugg duggati fa duggati fa te liñ ne ko yóor du sëqat quoi nañ noobi rek bu feeñee ñëpp dinañ dégg incha allah. Ah, noonu <laughs> ah, làmb nag ni muy ni muy doxee nii noo ko gisee ci li ñu am promoteur yi ñëwul mbër yi yokk seen kase nu mu demee noonu. waaw grand combat yi li ci taxaw bëreegul. tamit te li ñuy wax rek grand contre petit bi ren dafa war a neex quoi làmb dekkewaat. Mm. xam nga mm. tamit promoteur yi. nañ wax ak mbëri mbëri bu dee tamit kase yi moo seer ñu xool xam lamb ni mi doxee ñu jàppale lamb quoi ñu wàññi kase yi ñu mën leen tëggal combat lamb neexaat quoi ndaxte booy xool instant ay xale yi rek yu mag booy fi wax si da Papa Sow nga fi wax xam nga moo fi taxaw bu la sigoon te tamit dafa neex quoi saison bi taxaw nga dégg ay Balla Gaye am nañ combat ay Gris Bordeaux ay Tapha Tine xam nga tamit loolu day dekkalaat lamb quoi nañ ci jàpp wàññil promoteurs yi kase yi promoteurs yi ñëw mën ko tëgg lamb ju neexaat yankaaw mbër buy bëre dina am mbër boo xam ne da koy seetaan di yëg li sey supporter di yëg yow booy bëre. yee sii kay ndaxte boo nekk boo boo amul combat amateur ngay doon quoi man su ma amul combat amateur laay doon damay dem toog di siifur làmb quoi. kan mooy sa mbër. man sama mbër sentel la wante bàyyi na làmb. sama nijaay xam nga di ko nuyu de passage daf lu ne ci làmb. Langsar. mais làmb moo waxul dëgg. moo waaw di ko nuyu de passage su ñu amee combat da ci sonn taxaw di def lépp. mooy sama mbër mooy sama champion mooy sama lépp ci jom jaak ngor jaak fulla jaak fidwa lépp lu ñu def ci làmb rek ci moom lañ koy royee. du nuyu sama nijaay tamit sama tooma xam nga yénk euh, di ko ziar moom Issa mi ngi ci aar bi rab lay def di ko ñaanal tamit lim ci bëgg suñ defal ko suñ borom defal ko ci lu kawe njortam di ci muy nuyu ku ci mel dañu sonn barki Serigne Sall te loolu leen defal xam nga di yëkkati seen dërëm ak seen ñaar dërëm di ko ci def kon ñooñu mooy loolu dañ leen ñaanal ku nekk li bëgg suñ borom defal ko ko ba am ci yankaw foo cosaanoo yankaw fi mu cosaanoo dafa bëri mën naa ne ba wallaa cosaanoo rek dëkk Touba quoi Touba Mbaxeen dindi sëñ Fallou di di leen nuyu de passage waa ndindi gi yëpp di nuyu sama yaay sama papa samay maam samay mbokk yi ne foofu yëpp di leen wax ñu ñaan rek gis taxawaay xam nga tamit yaroo dëkk bu ñu naan Mbombay sama dëkku nijaay fa laa yaroo nga làmb moom boo nekkee Touba doo ko dund yaakaar naa mais foofu la ñu yaroo la ñu vis bi duggee du nuyu waa Mbombay gi yëpp nag waa Kër Waali Réfan Kër Ngon xam nga Kër Bakar Kër Sombel ak yaay bàyyiwuñu fenn waxal jaamu commune bi yëpp commune de Nodal bàyyiwuñu fenn di leen nuyu di wax ne foofu laa cosaanoo diggante Mbombay dëkk Touba Mbacké. waaw ay biir rek wala daanaka combat bi taxaw na dinañ dégg ne Yanka Junior am na combat. Yanka Junior day amaat combat léegi ndax dafa nekk xale nekk ci yoon nekk ci benn lancé tamit. ñu koy bàyyi xel kon tey du yoon ñu toog ba réew ñu quoi te ñun duñu duñu taamu ci làmb ñun boo ñu tegalee adversaire rek ñu xam ne kii ñun ak ñoom ay naataango lañ làmb la dañuy bëri ak yow combat Yankaw Junior ku ko nam xaaral léegi mu ñëwaat yaagul dara sax. mais yow équipe bi nga nekk euh, école de lutte euh, Doudou Bakar Sarr foofu nga mës a nekk. waaw école lutte Doudou Bakar Sarr laa mës a nekk ba ma commencé bëre ba tey hmm. mën naa ne 2015 laa fi ñëw quoi dama doon jàng arab hmm. ñëw fa sama nijaay moo fa nekk nekk ko si bu mbay fay mm. bi ma ñëwee tamit moo ma indi foofu oman ma dugal ma ci écurie ba tamit ñu dalal ma jàppee ma comme seen rakk bari Serigne Saliou xataluñ ma ci dara di leen a baax di leen ñaanal jàmm waa ko ci mel ni sama rakk sama xarit yaroo baax numéro un yaroo baax numéro deux quoi mm. benn booy la di sonn ci man xam nga su ma amee combat day daj lu ne ngir di ko nuyu di ko wax tamit xale la mi ngi ci làmb ji na góorgóorlu rek mooy loolu làmb ji kan moo ci dàq bëre. maa ci dàq bëre làmb ji waaw làmb ji maa ci dàq bëre. kan moo ci dàq xeex. ku ci dàq xeex moom xaw ma ko mais bëre moom maa ko dàq def. ba ci ñi ba ci suuf yaa ci dàq. ñi ci mag ba ci suuf maa dàq bëre ci làmb ji. gëm sa bopp de fii lay am bas. lii de moom mooy xola nangu yëpp dajoo dajaloo yow nga jël sa nangu bopp jëf ko sa sa moomeel. te li ci kanam rawli bët dañ ne la retour de Baye Fall bi. te baafa bi dafa rëddalaat na ñëpp ubbi seen bët toog di xool. kon kuñ la jox ci làmb ji yaa ko mën. xam nga nekkul ne nit ki soo ko daaxee bëri tamit yaa koy daan. déedéet. li ngay wax maa dégg te xam ko. waaw nit ki mënul boo ko daaxee bëri rek yaa koy daan. Mm-hmm. mais bëri moom ñi ma bëreel ñëpp bu doon daax leen a bëri ñoom ñëpp maa leen daan. Mm-hmm. waaw. mais nag instant bi dañ ne xale bi da doon nelaw dafa yeewaat xooli bëtam di xool jar te juum ci làmb waratuñu quoi. Mm-hmm. instant li ci kanam lépp dafa wala leer. yee xam nga lan mooy mën a may mbër mu am ay ndam. waa li koy may moom mooy liggéey la rek liggéey bu wér bi lépp lu laaj nga koy def xam nga di waxtaan ak say encourage ñi nga war a jox cër nga jox leen cër fépp foo xam ne daf lay may ndam xam nga nga fay dem lépp loo xam ne lay may mbër ndam rek nga nekk ci xam nga bañ di wor loo seex ak nit ki nga matali lool noonu te ñun ay taalibe lañ ay baaxaal lañ tamit lépp dara mënul rëy suñu bët quoi barki Serigne Saliou li may wax rek lépp ci doomu aadama la nekk ñun lu ñu nar am rek mu yàqal ñu nit ñi rek yàlla bu ñu ko am ndaxte ñun nit ñi rek la ñu am amuñu lu dul nit ñi di wax ñu saani ñuy ñaan ñu ngi taalal suñuy loxo ñëpp di wax ñu ñaanal bu baax a baax a baax. kon ñu di la jaajëfal si yéen waa wasaare lamb dañ koy siifar bu baax instant bi nii xam nga a ngi bàyyi seen waar ci lamb quoi su la neexoon ngeen ne xale lañ defuñ ci da ngeen xool xale yi fi ñu nekk nga ngeen leen di jëli di leen wane tamit loolu dañ koy rafetlu di leen ñaan seen site bi yàlla doon dem ba doon télé xam nga nuyu suñu ménagère de passage Mamadou Diouf di ko ziar bu baax a baax di nuyuwaat sama maman tamit maman Khady Gueye xam nga sama maman la sama yaay la sama lépp la di ko ñaanal di ko yaay booy anniversaire am démb la woon di la wax happy birthday dundal ah, ba say may di baawoon yow suñu yaa nga suñu lépp nga yow da ngay ba découragé wu ba fekkee suñu njëriñ du nuyu doomam ku ci mel papa ñoom mami ñoom nene ñoom maam jaara pa asan du sama waa koñ waa bentali du ma ko taay di wax xam nga ku ci mel ne ñoom abib ñoom mère su koy sama nijaay yi ma dëkkal tamit ku ci mel ni jaa xaal nijaay moor xam nga sonaluñ ma ci dara bari Serigne Sall dama leen nuyu di leen ñaan liñ bëgg suñu borom defal leen ko di nuyu waat waa aslem surtout waa mafia yokkal ma jaay bi instant bi chaque jour dañ naan mbër na combat yi ñëwaat xam nga di wax promoteur nañ daw ñëw instant yi fan si club Yankaw yëpp ñu ngi xaaraat combat bari Serigne Sall dañoo pare instant bi nii di nuyu ko ci mel ne alaaji xam nga sama lépp moom laay neexal di job aslem ma ci dara billaahi day seere job bi naas su ma waxee mu ne ma mbër demal nekk ci entraînement yi entraînement rek laa la sas dama koy nuyu di ko wax ne li nga bëgg yaa xam yàlla na suñu borom ah, a baax di du nuyu képp kuy bëggee Yankaw Junior di wax ne bala ngay riigo faaw nga raago bala ngay torojo faaw nga morojo cinéma bu paree nekkul bu ndakaaro jasaaka baafaal bi de retour ak lu am doole barki Serigne Saliou na mbëri daw ñëw jël avance bi fii la mburu mi xoyam ko mais dara